alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man walaah mbokki jullit yi noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di ko ñaan mu sambartal ay xéewalam ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aku xeetam rawatina képp ku ko topp ci siraatul mustaqim gannaaw loolu mbokki jullit yi suñ dellusiwaatee xool doxali ni nit ñi ak seenu dund ak seeni mbir seetlu waxtu nim foore ci dundu doomu aadama buñ xooloon kenn ku nekk li muy feesale waxtoom ci suba ba ca ngoon settantal ko danañ gis ne li ëpp ci waxtu yi ndekete day sànku li ëpp ci nit ñi xéewal googu nga xam ne mooy xéewalug waxtu xañ nañ leen jariñu ci moo tax lu bari ci dundu doomu aadama yi rawatina ci béréb yu mel ne béréb yi nuy dund jaxasoo beeg jëflante beeg nekkin wi ak dundin wi dafay sànq lu bare bari ci waxtu te lu bari ci doomu aadama yi duñ ko yëg lu ëpp ci waxtu yi jamono yuy sànku boroom a ci ànd ak mbégte mu rëy a rëy ndax nekk na ci loo xam ne xëy na jàpp na ne luy seral xolam la te séttantalul ba xam ne ndeketi lii luy sànq waxtu la jamono yi ñuy bég ci bis sàngam agsi bañ neexal ci seen bakkan ba xéewlu ca moo xam bis ba bisub lu mu doon ñi ngi fàtte ne bépp minit boo xam ne seqi nañ ko jëm ca loolee leen di bégloo ca kanam minit boobee wala waxtu woowee génn na ci seenu dund soreel na leen àdduna waaye jegeel na leen seen bàmmeel jullit bi su xalaatewul noonu lu bari ci waxtoom dana dem te du yëg ne ndekete waxtoom a ngi dem moo tax waxkat ba dane inna la nafraxu bil ayaami naqtauha wa kulli yawmin mada juzun min al umri bis yaa ngi romb rek nuy bég ànd ak sun bànneex te yëgunu ci dara ndekete bis bu jàll bu ne rek dagg nañ ko ci sa dund jeex na ci kon ginnaaw dund waxtu ci boppam mooy sa dund dëgg dëgg dëgg mooy sa dund kon de garde ko ak fonk ko mooy garder sa dund ak fonk ko waaye sànq ko it ñàkk koo fonk mooy sànq sa dund ñàkk koo fonk loolu moo tax nu yëg ne aajo woonan nag taxawaat benn taxawaay boo xam ne danañ fàttalente valeur wi nga xam ne waxtu am na ko ci dund jullit bi lan mooy li war jullit bi digganteem ak waxtoom lan mooy sabab yi nga xam ne bu ci jafandoo danañ ko dimbali mu mën a garder waxtoom lan mooy yi nga xam ne ñoom la war a dundale waxtoom lan mooy sabab yi nga xam ne mooy tax waxtu nit ñi di sànku duñ ko yëg kon loolu laaj na lu ëpp benn taxawaay waaye danañ tàmbali ci suñ taxawaay bi incha allah wax ci li ci jàppandi ci yeneen taxawaay yuy ñëw ci xutba yi ci des ñu continuer bunt boobu di ñaan sunu borom tabaraka wa mu def nu ñun ñëpp ci ñi nga xam ne seeni fan gudd na te la ca nekk ci biir waxtu ñu jariñoo ko def ko ci lépp loo xam ne lu leen di jariñ la wërsëgal nu nu jariñoo sunuy waxtu tabaraka wa taala mbokki jullit yi jullit bi su fekkee xam na ne waxtoom mooy li gën a foor ci lim am kon dana ko fonk ndax bokk na ci bindu doomu aadama mooy lenn lu ne lam jàpp ne moo gën ci lim am loolu lay gën a fonk kon nit ki bu fonkul waxtoom ñaare la koy dal mooy ñàkk a yëg ne ndekete mooy li gën a foor ci ci li mu am kon yëg-yëg boobu dafa war a dund ci nun nu yëg ne waxtu mooy li gën a foor ci li nu am waaye nag noonu mu amee njariñ noonu la garaawee itam ndax soo ko jëriñoowut rek lor jaay mooy ñëw moom doonut koo xam ne ab jàmbur la ci yow benn nga jëriñoo ko wala mu lor la moo tax dañuy wax ne al waxtu ko sayf dafa mel ne jaasi moom waxtu benn nga yor ko di ci dagg walla moom mu dagg la loolu lu mat a bàyyi xel la ci lii tax jullit bi fonk waxtoom ci la bokk moo tax al imaam ibnul qayim daf ne ginnaaw waxtu nit di mooy ak dundam ndax su amee xéewal gu muy jariñoo fii ci àdduna ak ëllëg ca àllaaxira ci biir waxtoom la ko liggéeyee su amee musiba mu ko gaar itam ëllëg muy dund dund gu metti ci bàmmeel yàlla nañ ci yàlla mosal ñu ñépp nee na su boobaa lam fàggu ba tax mu dugg ca safaan ba waxtu ci biir waxtoom la ko defe nee waxtu woowu nag day romb yamurru marra saxaab ni la aw niir di téeme romb rek jàll bu ne tuuti ñu ne niir wa jàll na sa waxtu woowu noonu la lay rombe ndax boo xooloon dundu doomu aadama la tàmbalee ci fa mu juddoo ba fa muy génne àdduna sun jàppoon ne ci ñu gën a gudd fan la bokk ñu naan am na juróom-ñett fukki at wala am na téeméeri at boo xoolee at yu jëkk yi yépp ak doyadeeku ñàkk solo la mën a gudd a def dara at yu mujj yi yépp ay feebar ak ñàkk solo ak dootu mën dara moom la kon diggante bi nga xam ne moom la mën a jariñoo muy fi tolloo ci kàttanam ak wéram diggante bu gàtt la diggante boobu nag bu sàgganee ndax foofu la ko lépp di soxlaa fa la ko caaxaane yi soxlaa poma ak mbóorant ma ñu naan ko yow yaay waa ji yaa yor yaay def nàngam foofu lay woroo diggante boobu nga xam ne moo gën a valeur ci dundam foofu la ko yi koy wor di gën a jubloo bi mu nekkee xale bu tuuti daanaka kenn faalewu ko bu demee ba màggat geesootuñ ko kon diggante boobu ko ñépp soxlaan na yëg ne mooy li gën a valori ci ak dundam mu gën ko bàyyi xel bu baax a baax a baax moo tax képp koo xam ne xam na valeur waxtoom kooku dana ci nay dana ci nay foofu rek lañ tagge nay waaye geneen nay ku mën a doon du gën waaye nag nit ki moom ci waxtoom daf cee war a nay waru cee joxe lu dul loo xam ne xam na ne lii luy jariñ la fii wala muy jariñ fële ci àdduna fële ci àllaaxira kon su xamee walooru waxtoom faaw mu nay ci waxtoom lii moo tax chariat islaamee bu ñu xoolee muy alquran ak sunna danañ gis ak yitte woogu rëy rëy ci alquran ak ci sunna borom bi tabaraka wa bu dee waat ci waxtu ci détail bu bu sewa sewa sew sew mu di ci waat di ci giñ loolu daf nuy wane lu am solo la borom bi giñ na ci guddi giñ ci bëccëg xanaa suñ ne woon rek yem na ci waat ci guddi ak bëccëg ñu nekkoon loolu mooy àdduna lépp waxtu lépp guddi ak bëccëg la waaye yemul ci loolu dafa dugg ci biir détails yu sew yi nekk ci biir guddi ak bëccëg di ci waat waat na ci guddi waat ci bëccëg waat ci suba waat ci fajar waat ci yoor yoor waat ci takkusaan kon wan waxtu moo des wenn desu kon dalay won ne borom bi tabaraka wa bu waatee ci dara ci bindeefam yi lam ci jublu day mooy won leen ni lii lu am solo la yéen bindeef yi geesu leen nangam te bàyyi ko xel xam ne lu am solo la loolu moo tax ma waat ci borom bi tabaraka wa buy wax ne wal fajiri di giñ di waat ci fajar wax ne wal layli giñ waat ci guddi ne wadduhaa waat ci yoor yoor wal asri waat ci takkusaan kon bàyyiwul benn waxtu lu dul waat na ci kon li muy tekki mooy amul benn waxtu boo xam ne war naa romb ci sa dund yow jullit bi nga sàggane ko bàyyi ko mu jàll fajar gi am na solo suba gi am na solo yoor yoor bi am na solo bëccëg bi am na solo guddi gi lépp am na solo takkusaan bi am na solo kon bul bàyyi wenn waxtu muy sànku soo nekkul di def loo xam ne lu lay jariñ ci sa àdduna la ak ci sa àllaaxira nekkal di noppalu ngir bëgg a mën a jóg def lu lay jariñ ci sa àdduna ak sa àllaaxira loolu boo ko defee sëg dund insha allahu da ci jariñu noonu la alquran jàppe waxtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fedd li na loolu valeur boobu nga xam ne moom la waxtu am soññee ci ci anam yu bare bari xam ngeen ni ci xadisu Muaas ibni Jabal radiallahu taala anhu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wax ni yowmal qiyaam kenn du jàll lu dul danañ la laaj ñeenti yëf ñeent yooyu ba ci njëkke daf ne an umrihi fi ma afnaahu sa dund ga sa dund ga ci lan nga ko jeexal bu boobaa loolu mooy laaj bu njëkk bi xam nga ne borom bi tabaraka wa mi la bind wàcce la fii ci suuf di la wërsëgal ba nga nekkee ci biir ñi ëmb la ba nga génn di màgg ba doon la nga doon jox la ci waxtu jox la ak wér jox lam xel kooku amatoo aw lay ci kanamam moo tax bokk na ci laaj yi ñuy laaj ña sàggan bu ëllëgee awalam nu ammirkum maa yatadakkaru fiihi man tadakkar ndax maynu leen woon ci ak dund loo xam ne fàttaliku ak jub xaj ne ca su boobaa la yow mooy on oh kay may nga nu ko kay ndax ki judd nga may ko muy dund ba am ñaar fukki at googu xéewal nga dolli ca mu amati ñeent fukk juróom fukk far bañ naan juróom fukki at ak ay juróom-ñaar fukk kooku xéewal gu rëy la goo xam ne borom bi tabaraka wa moo la ko jox moo tax mu ne lañ koy njëkk a laaj mooy sa dund gi ci loo ko paase su boobaa day lay xéewal mooy tontu la dëppoo ak bëgg-bëgg sunu borom tabaraka wa taala ci jaamu yàlla def lu baax dox ak bokk tasaare xam-xam woote ci diine digle lu baax tere lu bon di julli di woor di def jaamu yàlla yi nga ma digaloon su fekkee tont li mooy bu boobaa mooy tont li alhamdulilah kon xol xel mën naa dal su fekkee tont la beneen safaan la nar a doon nag kon ginnaaw dese nga dara ci waxtu waajalal sa bopp waajalal sa bopp tontu loolu ginnaaw yaa ngi fi di dund dese nga dara ci xel amaana nga dund tey ak suba ak fan yi ciy tegu amaana nga teg ca weer amaana sax yàlla mën na laa baaxee ba déwén fekk la nga taxaw di wax kon gaawal fexe ba loolu la dese ci waxtu loola ci faatoon nga jéem ko cee dab daf lay la ci jiitu mooy sa dund lañ lay jëkk a laaj suñ noppee nag sag ndaw danañ la ko laaj xam nga ne foofu mooy diggante bi ëpp solo ci sa dund mooy bi nga weesoo nekk xale bu tële te àggagoo ci màggat mu tële foofu mooy sag ndaw nee na loolu lañ lay gën a laaj danañ la laaj sa alal ji foo ko jële ak bi nga ko amee ba noppi foo ko def kon nga xam ne alal it responsabilité bu rëy la boo xam ne war ngaa góorlu ba fa nga koy jële mu lew doon loo xam ne yaa ko moom du tappale du njuuj njaaj du alali jàmbur du luñ fëkk du luñ sàcc foo ko jëlee boo ko amee ba noppi it sañoon rek libre naa maa moom sama yëf fu ma neex laa koy def waaye fa nga koy def itam na doon foo xam ne borom bi tabaraka wa taala dafa digle ne fii nañ fi def alal kon danañ la laaj sa alal li nga am moo xam bari na wala bariwut foo ko jëlee ak ci loo ko def danañ la laaj li nga xamoon itam loo ci jëf moo xam bari na moo xam tuuti na kon ñeenti laaja a ngoog yoo xam ne gis ngeen ne ba ci jiitu mooy laaj la sa dund ci loo ko def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne bokk na ci xéewal yi nga xam ne dañoo nax lu bari ci nit ñi mooy xéewalu dund gi nga xam ne da koo yor mu ànd ak wér gi yaram ba noppi ànd ak am jotu jóg def dara yooyu suñ àndandoo xéewal bu rëy la waaye boroom du ko yëg lu dul su fekkee dem na ba gis na rek mu ngi koy tàmbalee ñàkk lu gën a bari wér gi ki nekk ci biir wér gi yaramam day jàpp rek nit ki nii rek la wér gi yaram mel waaye bis boo xam ne tawat dikkal na ko rawatina tawat yu bon yi nga xam ne kum dal sa njort dal nay ñaaw ne wér moom duutu la yomb boo xalaatee ca gannaaw ba nga yoree sa wér ga faaw nga ne ak a neexoon wér googee dellusiwaat ba ma mën a def nangam ak nangam ak nangam dem ba jëmmi jamono màggat ñëw nga tële li nga mënoon lépp mënatoo ko ngay wax ne ah neexoon ndaw nga delsi ala ah, layta shabaaba yaudu yowman fa uxbirahu bi ma faala su boobaa duutu am njariñ di wax ne ak ah, a neexoon ndaw nga delsi ba ma man koo xabaar li ma li may dund léegi su boobaa sax déccu ga du demee noonu waaye mooy ak ah, a neexoon ndaw nga delsi ndax mu mën faa def lu baax ndax mu mën a taxaw jaamu yàlla mën a def li yàlla digle mën a bàyyi li nga xam ne moom la tere kon jullit bi jaadu na ci moom mu taxaw ci waxtoom ci ay mbir yoo xam ne benn bu ci ne bu am solo la danañ ko junj tey la koy leeral ca kanam lay nekk incha allah bi ci jëkk mooy jullit bi war naa xér lool lool lool ci waxtoom xér lool lool ci jariñu ci waxtoom ndax kat alal mi nga xam ne nit ki moom jarul ñi koy jàngal naan ko xelal ci sa alal kenn ku ne yaa koy defal sa bopp alal moomu dañ koo fonk rek moo tax nit ñi xëri ci noonu te alal moomu day ñëw di dem nit ki da ci am alal ba léegi mu ñàkk ba léegi mu amaat ba léegi mu ñàkkaat su fekkee noonu la xëri ci alal te alal day ñëw di dem kon nim xëri ci waxtu moo war a gën a tar ndax waxtu bu demee du ñëwaat lu ci dem rek jàll minute bi nga xam ne toog nga ba dund ko boobu jeex na jóge na ci sa dund duñ dem mukk ba mu yàgg minute boobu dellusiwaat kon nit ki waxtoom la gën a fonk kon moom la war a gën a fonk ci alalam loolu moo tax asalafu saalix te danañ ñëw incha allah ci bunt boo xam ne ñoom fan lañ tegoon waxtu ñoom ñi fonkoon loolu waxtu mooy mag ñu jëkk ña saxaaba yaag ñañ yar ak ña jeexital ci ñoom fan lañ tegoon waxtu fonkeel googu ñu ko fonkoon ngir xam fa mu toll rek moo ko waraloon xam valeuram bis daawul romb wala benn laxza muy waxtu benn moment du jàll ci seenu dund lu dul danañ fexe ba jariñu ca dara faaw ñu jéem ca xamlu luñ xamul woon wala ñu jéem caa def lu baax loo xam ne defuñu ko woon wala ñu jéem caa not seen bakkan wala ñu jéem caa fàttaliku sax lu baax wala ñu jéem caa def lu baax jëmee ko ci nit wala ñu wax ko jëmee ko ci nit moo tax alxasanul basri mi nga xam ne saxaaba yi ñoo ko yàq daf ne man day dundoon naa ak aw nit ñoo xam ne fekk saxaaba yi lay wax dundoon na ma nit ñoo xam ne day nañ xere woon ci seen waxtu moo gën a tar yéen ñii ni ngeen xëri ci seen dërëm yeeg seen dinaar yi maanaam ni ngeen xëri ci xaalis ñooña nañ xëri woon ci waxtu moo ko féete kaw ñaareel ba mooy jullit bi su xamee ne waxtoom noonu la amee valeur war na organiser waxtoom ndax nit ki lii jékki-jékki jëm ci moom ci yu ko soxla ak yu mu soxla bëgg koo def ci lu jëm ci baaxal àddunaam ak jagal ëllëgam yooyu dafa bari te dañuy raj-rajloo di xëccoo place yu mel noonu nag su fekkee ne organisé wu ko teg ko ci yoon lenn lu ne mu wutal ko waxtu su ay mbir yu bari jékki-jékkee daje mu xool lu ca gën ci diineem ak ci àddunaam mu jiital loola door caa teg yeneen ya ca des su deful organisation bu mel noonu rek dana àgg ci diggante boo xam ne duutu def dara ndax jamono yoo xamee ne leem dugg na muy naa bàyyi ba ëllëg wala ba ngoon ma def nangam su boobaa rek ñàkk def dikk na ndax yi nga xam ne dañ laa soxla moom yépp dañoo taxaw te doomu aadama ji borom bi tabaraka wa taala daf koy jox misaal ci ak dundam sa bind yow ci sa jëm yow ci sa bopp yow doomu aadama yi nga xam ne moom la saw yaram di soxla lu ci jot rek dafa daal di war a am ci saa si lu ci jot rek amul waañ kooku bind la boo xam ne daf lay jàngal ne yi jaadu itam ci sa dund nga war a jóg defi ko lu ci jot bul ko waaj ki toog ba mu yàgg aw mar di ko bëgg a rey balaa am jàmm rek day naan luy xew door a xew xiif noonu su jekkee ba mu yàgg mu soxlaa dem ca wana wa sax li fekk demul jàmm duutu am kon yaramu doomu aadama ji ci boppam yi muy soxla lu ci jot balaa amati jàmm da koy faj amul waaj amul leem amul damay xaar ba ëllëg wala semaine bii ñëw faaw mu jóg faj aaju jooju su ko deful dara du sotti kon nag sa mbir yi nga xam ne dañu laa war tege ci sa kaw sa diine teg la ko sa àdduna teg la ko lu ci jot xamal ne bind boobu nga war a jàngat foofu mooy jóg daal di gaaw defi ko ci nem jaanoo moo tax boroom xam-xam bu mag day wax ne waxtu doom aadama ñeenti waxtu rekk la ba ko juróomeel mooy mooy wàllu yàlla ñeent yi mooy lan nee na nit ki benn waxtoom yi muy dund mu doon xéewal wala mu doon ab nattu wala mu nekk topp yàlla wala mu nekk mooy yàlla ñeent yooyu nag benn bu ci nekk bu ci nit ki dund bu ne am na loo xam ne wàllu sunu borom tabaraka wa taala la woo xam ne moo ko war foofu mu jëfe ko ki nga xam ne dafay dund topp yàlla topp yàlla mu nga ca ndigal ya di def ndigal ya di bàyyi tere ya kooku la jaadu ci boppam mooy fu mu toll fu ne yëg ne borom bi tabaraka wa taala defal na ko xéewal mu am yëg-yëgub ne ah caaxaankat yéeg taxawaalukat yéeg moykat yi taxawaalukat yàlla musal na ma ci la leen dal defal na ma xéewalu mucc ci loolu yëg-yëg boobu dafa war a ànd ak moom fu mu toll warta tàqalikoog moom ki nga xam ne xéewalam maanaam waxtoom wi muy dund mooy xéewal gu ko borom bi tabaraka wa taala sottil léeg borom bi tabaraka wa may nit ki ay may yu baree bari sottil ko moo xam ci wàllu àdduna am la wala ci wàllu darajaam wala moo xam ban façon melokaan kooku lim wërta tàqalikoo yoreel ko boroomam faaw loolu mooy sant wërta dañ mukk di sant boroomam sant nag ci jëf lay tege ki nga xam ne waxtoom daf koo nattoo dañ ko nattoo mu doon ak mooy yàlla kooku cërub boroomam bi gën a jamp ci moom mooy tuub ak jéggalu dellusi ci njub ki nga xam ne nag ay natt moo tegu ci kawam moo xam nattu ci yaramam la muy wér-gi yaramam wala ci alalam wala ci njabootam cërub boroomam tabaraka wa taala ci moom mooy mu gërëm looli ko borom bi tabaraka wa teg muñ ko kon jullit bi ndeke lu tege ci kawam lu ne rek am na nu muy jëf leen jëflanteeg boroomam ba su dee xéewal xéewal ga yokku su dee musiba musiba ma dañ kon nit ki dunde noonu waxtoom kooku la waxtoom fees ñetteelu mbir yooyu mooy waxtu wi nga xam ne mooy waxtu wi nga demee ba defe ne defatoo dara li ñu tuddee vacance wala moo xam tur wuñ ko mën a jox nga xam ne jàpp nañ ni nit ki doon nañ liggéey ba mu yàgg liggéeyatut kooku ci musiba yi gën a garaaw ci dundu doomu aadama ji su fekkee jëfandikoo ko fi ñu ko war a jëfandikoo ci la bokk moo tax hadis bi ñu waxoon ci gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf na woon ñaari xéewale ngi yoo xam ne lu bari ci nit ñi ndax nañ leen ci muy wér gi yaram ak am jot wér gi yaram ak am jot ñu bari seenu wér duñ ko yëg su demee di door a yëg ne ñoom ci wér lañ nekkoon jot gi ko bàyyi <coughs> lu dul suñ demee ba amatuñ jot ñu door a yëg ne ndekete man amoon naa jot ci li weesu woon su jàllee soo calculé xool sa waxtu wi weesu loo ci def gis ne ndekete defuloo dara te léegi yaa ngi bëgg a def te amatuloo jotug def kon kooku doomu aadama yi war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax moo tax kenn ci boroom xam-xam yi day wax ne ak jot day xéewal gu mag la xéewal googu nag ku ko santul buntub topp bànneex ak buntub caaxaan mooy daal di ubbiku mooy daal di ubbiku su ko defee bu boobaa alkande alkande dikk na walla yaasu billah kon nit ki faaw mu seet waxtoom yi nga xam ne mooy waxtu yum jàpp ne yum am jot la mu wutal ko programme boo xam ne moom la ciy def balaa agsi ginnaaw yëgoon nga ne waxtoo ngi ñëw woo xam ne bu agsee danaa am bis wala ñaari fan yoo xam ne xëy na néewuñ lii faaw nga dem defi ko man danaa fexe ba sase sama bopp loo xam ne ci diggante boobu laa koy defe te danañ leen jox ay messages yu bari incha allah ci dundug asalafu saaleh seen waxtu yooyu nan lañ ci doon jariñoo ñoom ndaxte lee ñu mën see jariñoo nun itam euh, ñu yëg ne ñàkk bari jot daal moom du wàllu jullit jullit bi moom dafa war a ñàkk jot fu mu toll fu nekk rek war naa nekk ci loo xam ne luy jariñ la lu koy jariñ di jariñ jullit yi di jariñ bindeef yi di jariñ réewam di ko dàqal lor di ko dàqal jullit yi di ko dàqal itam mboolem réewam allahuma aiza al islaama wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي مأوانا allahuma astur awratina wa amin rawaatina wa axfasna min bayni aydina wa min xalfina wa an aymanina wa an shamaailina wa min fawqina wa min taxtina wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa aqim alsalaa